أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi dellu siwaat di jàppalante ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala ñu ngi woon xam nga ci suratul baqara tolloon ci ay ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci aaya boobu la ñuy tàmbalee tey aaya 243 244 245 mu nekk ñetti aaya yu nu sornu boroom subhaanahu wa taala di jàngal ay àtte ak ay mbir ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu boroom subhaanahu wa taala mi ngi ciy wax ak yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam mi ngi naan ko yow yonent bi xanaa yëgoo ne am na fi benn dëkk boo xamante ne dañoo génn di daw dee ba ñuy génn ay junni junni junni lañ ay fukki junni lañ mbooloo mu bari lañ génn nañ seen dëkk benn ci dëkku banu israil yi la waraloon ñu génn nag ak di daw mooy choléra moo nekkoon ca dëkk ba ñu ragal dee ñoom ñépp ñu génn fëx ba ñu dawee dafa ne rëcc nañ yàlla daal leen di rey ñoom ñépp waaye mu dekki laal leen moom sunu boroom ci ay xéewalam yi muy wone bis bu nekk ak kàttanam ci ñaanu yonentam bu tudd Hizqiil ginnaaw ba mu leen reyee yonent boobu daal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla daal leen di dekkil waaye boroom baa ngi jàngal ci ñetti aaye yi ndax ñooñu daw giñ doon daw dee ndax rëcc nañ ci dee kon nañu yëg ne daw dee du la musal fa kazalika man yafirru min alqital loolu yàlla di ñu won ne ci mbooloo mi doon daw dee yàlla daf ñu ciy jàngal ñun julli di tey jarul ñuy daw xare kon ngay julli di tey bugguñu jihaad am na sax benn sommet aussi yi bu amoon Sénégal ci lañu dindi baatu jihad ci islam ñu ne jihad amatul ñu ne bu ko kenn waxati léegi daal ñaari jihad la woon xeex ak jaasi ak xeex ak bakkan léegi xeex ak jaasi jeex na léegi xeex ak bakkan rek tey su ngeen xoolee fitna bi dal jullit yi ci kaw suuf bokk na ci sabab yi mooy bañ a xeex bañ jihaad bañ jihaad lu tax mooy bañ dee bañ dee nag du tax nga dee du tax doo dee mu ne isan bu fekkente ne yàllaa moom dee moo ko def ci nit ñi feebar ak jihaad wér ak ñàkk a wér am ak yor moo yem dee bu ñëwee da ngay dee isan falima alfiraaru min aljihad isa taayana kon lu tax jullit yi bañ jihaad tey lu tax jullit yi daw dee lii borom bi wax na ko pour yedd jullit ñi pour yar leen wan leen mbooloo ma ko ba defoon yàlla rey leen dekkilaat leen loolu nag xéewal la bu bàyyee ko sunu borom waaye li ëpp ci nit ñi ñoom duñu sant yàlla isan bu fekkee lii am na yéen jullit yi ñun jullit yi borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ñu xeex fa qaatilu ayuha almuslimun yéen jullit ñi na ngeen xeex fi sabilillah ci lépp luy kaweel kàddu yàlla ci lépp lu yëkkati lislaam lépp lu koy kaweel lépp lu koy tasaare lépp lu koy màggal na ngeen ci taxaw wala tataaxaru mata duitum ila aljihaadi bin nafsi wal maal bu leen tarde buñ leen woowee ci ngeen joxe seen bakkan wala ngeen joxe seen alal bu leen tarde wuy ji seen borom subhanahu wa taala mbokk yi sahaaba yi dara taxul ñu raw dara taxul ñu gën ñu lu dul bi yàlla wootee ñoo wuyu waaye joxe seen deret joxe seen alal am na ñoo xam ne dañoo joxe ba joxe seen rongoñ amuñu lu ñu joxe ñu joxe seen rongoñ am na ñoo xam ne dox nañ ci yoon wi ba seeni weewu tànk teggeeku am nañ ñoo xam ne dox nañ ba seeni deru tànk teggeeku kon ñun jullit yi tey booy xool sunu mbir da nga gis ne tey ñun ñoo ëpp saxaaba yi moyen ñoo leen ëpp moyen de wala ñoo leen ëpp ay jumtukaay wala ñoo leen ëpp mbooloo wala lu tax kan ñoom ñu raw nu lu tax ñoo leen ëpp moyen téeméer yoon ñoom ay fas ñun tey luñ yor ñoom da nga ci gis koo xam ne ndeysaan benn yére la am benn yére benn yére benn yére jànge amir bi Umar Falon nga xam ne keroog ba Umar dajaleeg mbooloo mi ne leen waaye yéen seen amir bi lu leen métti ci moom ñu ne ko moom jeudi kenn du ko gis du génn loolu bokk na ci lu ñu métti jeudi kenn du ko gis munoo fexe ba jeudi ñu gis ko Umar ne ko sëñ bi lu tax doo génn jeudi ci mbooloo mi mu ne jeudi benn yére la am dama koy fóot jeudi weer ko pour ma mën a jiite vendredi mu set benn yére ñun ku nekk tey ñaata yére nga yor kon ñun ñoo leen ëpp waaye ñoom lan lañ ñu ëpp mooy imaan ñoom loolu lañ ñu ëpp imaan tey li julli di yor l'islam waru loon tumaranke nombre nit ak alal bi julli di yor ci ay nit tey l'islam fi mu toll un milliard ak genn wàllu musulman mu ngi ci kaw suuf sahaaba yi keroog Badar ñetti téeméer la ñu war a fukk ak ñett ba yonent bi tiit yëkkati yàllaay loxoom naan ko boo seetaanee ba ñu rey ñett ñi ñii ñii kenn dootu la jaamu ci kaw suuf ñii rek nga fi am ñii ñii amul keneen bu leen rey rek terminé ba yàlla indi ay indi ay ay malaayika ñuy xeex ci kon lu tax bu nu woowee ci luy kaweel kàddu yàlla mbokk yi ñuy ñuy yaafus yaafus waalamu anna allaha samiun li aqwalikum na ngeen yëg ne yàlla ku dégg seeni wax la waaye alimun yàlla ku xam la bi niyaatikum ci seen yéene sahaaba yi lan lañ ñu rawee mooy ngëm ak yéene loolu lañ ñu rawee wallahi ñun lépp luy kawee lislaam mi ngi fi tey ci kaw suuf yàlla pare indil na ko julliti waaye yéene yi ñoo sellul ngëm gi moo fi nekkul borom bi subhanahu wa taala aaye bu mujj bi mi ngi ci woo jullit yi naan leen ana kuy lebal yàlla lebal bu rafet yàlla fay ko ci def alalam joxe li mu yor ci kàddu yàlla subhanahu wa taala yàlla dubleel ko mbokk yi ñetti aaya yi ci tënk moom la ñuy jël ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوف هزر الموت هذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يقول الله جل وعلا ألم ترى يا محمد خنا جسو خنا يبو خنا خموني جسوني yokkal ci sa xam-xam bi nga xam alam tara xanaa gisoo ilal ladina ci gaaya nga xam ne xaraju génn nañ min diyaarihim ci seen kër seen kër ya wahum ñoom uuluufun ay junni junni junni lañ lan moo leen génne xadaral mawt di daw dee allahu akbar dee xam ngeen nit day daw dee dañu am suñu benn xarit yaayam daf ko tàggu ne ko sama yaay dafa feebar dama koy seeti Guinée mu ne ko bul dem yaay ji ne ko foog ma dem parce que sama yaay moo feebar bu doon sa yaay moo feebar buñ la ko waxee da ngay dem mu ne ko kon bul dugg oto bàyyil ma yónnee la billet avion yaay ji ne ko waaw ñu yónnee yaay ji bii avion yaay ji jël air Sénégal jëm Guinée wàcc aéroport jël oto oto bi dugg ci benn dex meer bi lab dee lu waa ji doon bañ ci yaayam naan ko bul dem ci jamono bi jamono nawet la foofu wóorul bàyyil ma jox la sax bii avion meer bi ne ko waaw mu dem wàcc jël oto ñuy traversé benn dex oto bi dugg ci biir dex ba ñëpp lab meer bi dee kañu seeti woon moo mujj ñëw ci dëj bi nit day daw dee waaye dee ayna ma takunu yudrikumul mawt fu ngeen mën a nekk dee fekk leen fa dee programme yàlla la bu mu teg suñu kaw kenn mënu ci mucc ku judd rek dee te bu ñëwee amul garab kenn mënu ko téye boo waree dee da ngay dee boo waree dund kenn mënut a fexe nga dee loolu la saxaaba yi gëmoon moo tax ñu raw ñoom dañoo gëmoon ne yàlla rek moo leen yor seen bakkan ñii feebar moo am ca dëkk ba feebar bu tudd choléra ñoom ñëpp ñu daw xaraju ñu génn ñoom ñëpp min diyaarihim ci seen kër ya wahum ñoom jamono yooyu ñuy génn uluf jamu alf ay junney junney junney junney nit lañ ñoom ñëpp ñu génn fu ñu jëm xadaral mawt ngir daw dee ngir moytu dee ndeysaan ba ñu demee ba yaakaar ne rëcc nañ fa qaala lahum allahu muutu yàlla ne leen dee leen allahu akbar fa qaala lahum wax na leen allahu yàlla muutu dee leen ñoom ñëpp ñu dee haazal amr mu ne amrun laa takni li sharci taabudi mu ne amrun takwini haaza haazal amr amrun takwini mu ne lii nag formation la bu leen yàlla doon formé comme ni mu formé woon Ibrahim Ibrahim ba mu ne yàlla arini kayfa tuhyil mawta yàlla wan ma nooy dundale ku dee qaala awalam tuumin yàlla ne ko xanaa gëmu mu ne aha kay waaye li yatma inna qalbi ngir sama xol sama conscience mën a tranquille ma am yaqin dootuma am doute gis nga ñiit yàlla rey na leen seen yonent bu tudd Hizqiil moom lañ bokkaloon jamono moom la yàlla yónni woon ci ñoom mu daal di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dekkil leen pour won leen ne daw dee taxuta mucc soo gëmee ne dund bu ñëwee dund la da ngay rëcc waaye dee bu ñëwee tamit dee la dund bu ñëwee da ngay dund kenn mënul la dara am na ñoo xam ne tey ji buñ la meroon fekk ngelaw li nekk seen loxo dañuy téye dañuy dañ laa la yow yow man ngay fantoo pare nga moo tax gis nga suñu borom subhanahu wa taala comme yooyu muy dundal nit mu yore ko ci loxoom jox ko kenn jox ko sax yonent bi gis nga bañ laajee yonent ñu ngi lay laaj mbirum ruu mu ne quli ruu min amri rabbi jox ko sax yonent bi mbirum ruu loo ci wax mu ne ah loolu kat sama mbirum borom la xaw ma ci dara sama mbiru borom la yàlla moo ko yore waaw moo ko yore malakal mawti sax mooy reye waaye mbir yi xamu ci dara day jékki-jékki rek ñu jox ko liste yi ñoo war a dee tey mu dem rey ñëpp ku nekk dina la ziar si malakal mawti nee na xam naa ginaar yi ci kër yi sax kër gu nekk xam naa ñaata ginaar moo fa nekk kër gu nekk xam naa ñaata xar ñoo fa nekk kër gu nekk xam naa nit ñi fa yeewu xam nga lu tax mu xam ginaar yi ci kër yi xam ngeen ko xam nga xam ngeen ko ndax dafa bëri lu mu fay ñëw moo tax ndax nit ku nekk dina la ziar si cinq fois par jour pour pour war ngaa dee wala waroo dee wala ñun ndeke léeg-léeg nga xëy ñuy seet si yow war ngaa dee yow nga nekk ci beneen programme wala tey programme Sénégal ak a bëri jàkk yoo amul nit yoo xam ne du du dara tubaab yi dina nax rek kenn xamul lii lan la Sénégal du ñu avancé dëkk boo xam ne mënuñu am sax courant da ngeen fale woon Ablaye Wade pour am courant ku biir jeex na jeexut de ah dund gi wàññeeku na wàññeeku de ah di ngeen fal di ngeen fol li falaat islam rek islam rek islam mooy solution ñëwaat ci islam rek mooy tax suñu milliards yi kenn dootu ko sàcc ñu koy def fu fu jaadu kenn dégg naa ñi ngi jooy xaalis bi ñu dajale woon ci mbënd mi ñu ngi koy jooy ne gisuñu ko wala dégg naa tey rajo journal dégg naa ko ñu ne xaw ma sinistré yi ñu ne gisuñu seen xaalis duñ ko gis duñ ko gis parce que loxo yi ñu ko teg moo baaxul waaw Sénégal mu ngi noonu waaw dégg naa encore am na problème góor jigéen dégg naa fi benn journaliste bu ngan fan yi moom at at bi moom xanaa atu journaliste yi la waaw yàlla moo leen di woon boppam ne yàgg rek seen mbóot yëpp dina sulleeku suñu borom ne le ñii fa qaala lahumullah yàlla nee na leen muutu pour former leen après mu dekkil leen summa ahyaahum après mu dekkil leen gis ngeen mbirum dund ak dee ci loxo yàlla la nekk dund yàlla rek moo koy def kenn mënul dundal nit ku dul yàlla dee yàlla rek moo ko mën kenn bis bu nit dee nañu xam dafa war a dee bu nit dundee nañu xam ne dafa war a dund ndax mbir moomu ci loxo yàlla la nekk imaam Malik dafa gént gis malakal mawt mu ne malakal mawt lan moom ma fi dese mu ne ko nii juróomi loxo yi juróomi baaraam yi xamul lan la ko wax muy laaj mbaadu juróomi weer mbaadu juróomi fan mbaadu juróomi waxtu ndeke da ko ne juróom yooyu dafa bokk ci juróom yi nga xam ne yàlla rek moo ko xam man xaw ma ko mooy xëyb kenn xamu ko moo nekk suratu luqman ci fin bi kenn xamu ko juróom yooyu yàlla rek moo ko xam dund ak dee ci la bokk wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamuut mu ne inna allaha yàlla sunu boroom subhanahu wa taala la zu fadlin boroom xéewal la borom ngëneel la ala naasi ci nit ñi wallahi yàlla subhanahu wa taala ay ngëneelam ay ngëneelam foo ko takk wees na ko sunu borom subhanahu wa taala la zu fadlin ala naas waaye walakin aktar annaasi la yashkurun allahu akbar mbokk yi ay yu mel nii daf ñu war a wàññi yàlla nee na moom subhanahu wa taala la zu fadlin ala naas ku bëri ay xéewal la ci nit ci nit ñi waaye lan la teg ci kanam walakin aksara naas la yashkurun waaye nit ñi du ñu sant xéewal yooyu ma jox leen rek benn misaal fi ñu toog nii bët yi ñuy xoole nii est-ce que xam nañ xéewal yi nekk ci bët kan ci ñun mooy toog benn bisu yaa mu ne xaar ma sant yàlla ci sama bët yi est-ce que dinañ ko def nopp yi dégg bu fekkoon ne boo xoolee ba ngoon ñuy ni la facture ne la li nga yendoo xool fayal wala nga déglu ba ngoon ñuy ni la facture ne la li nga yendoo déglu da ngay fay wala ngelaw li ngay nooyi gémmiñ gi wax cër yi dox kon yàlla ne bu ne damaa bëri xéewal ci yéen waxuma sax ñuy dem feneen mais fu ñu toog nii rek nan xool suñu bopp suñu borom wax na ci quran ne wa fi anfusikum afala tubsirun yéen xanaa du ngeen xool seen bopp doomu aadama yi nag booy waxal ñoom yàlla daf leen defal xéewal ñu ngi xool étage yi ñu ngi xool xaalis yi ñu ngi xool ay conteneur ñu ngi xool ñi tukki fekk yàlla bu ne defal naa la xéewal balaa ngay buuse xoolal sa bopp ba pare soo taxawee léegi-léegi nga gis benn waaye buy raam amul ay tànk wala yaa ko gën boo taxawee léegi nga gis ko amul bët boo taxawee léegi nga gis ku dul wax boo taxawee léegi nga gis ku dul dégg boo taxawee léegi nga gis koo xam ne ndeysaan mënul lekk tey dama doon dama doon waxtaan ak benn waay mu may wax benn dëkkandoom boo xam ne mënatul lekk lekk bi mënatul jaar ci put bi dañ ko defal raakol raakol borom raakol dina lekk ceeb dina lekk yàpp dañuy def ruy ba mu ba mu kii ñu def ko ci benn pikiir daal di koy pikiir daal di koy ci raakol bi pikiir ko mu dem ah kooku xoolal ñun xéewal bi ñu yàlla defal yaa ngi xëy dara jotu la bët yi alhamdulillah nopp yaa ngi dégg gémmiñ gaa ngi wax loxo yi ah kon yàlla la zu fadlin ala nas yàlla ku bëri xéewal ci nit la yàlla bi ngi la may jàmm feebaroo dara jotu la sa njaboot sa kër yàlla tegu la benn fitna loolu xéewal la mbokk yi boo xam ne nit ñi waruñu fàtte xéewal yooyu yàlla di leen defal waaye xoolal adresse bi ci borom bi teg walakin aksara naas waaye li ëpp ci nit ñi laa yashkuruuna duñu sant yàlla ci xéewal gi yàlla defal leen muy wér afiya afiya dañ doon laaj yonent bi saa salaam lan moo gën a rëy lu nit war a ñaan yàlla mu ne jàmm al afiya ñaan leen yàlla afiya yaa ngi ci jàmm yaag sa njaboot sa yaram dara méttiwu la am na koo xam ni tey chaque jour vendredi ngeen gis ñu indi fi ordonnance ay nit yow alhamdulilah rabbil alamin am na ñoo xam ne bu ñu lekkee du rees am ñoo xam ne bu ñu buggee saw foog ñu yóbbu leen dugal leen ci oto yóbbu leen hôpital ñu pompe saw yi ñu bàyyi leen ñu ñibbiwaat am na ñoo xam ne fu ñu nekk dañ leen di takkal mbuus seen kanam takk ko seen ndigg parce que fu ñu toog ay saw day sotti loolu yëpp yàlla muccal nañ ci kon war nañu sant yàlla doomu aadama rawatina ab jullit war nay sant yàlla lu bare bare bare bari waaye ñun tey seytaane moo ñu këf ba sant yàlla jàpp nañ ne ku am xaalis rek mooy sant waaw am nga xarum tabas man kay maa ngi sant yàlla jënd naa démb maa ngi sant yàlla bu baax parce que jënd nga xar ah am na koo xam ne jënd na doon mais du ko tabaske jënd nga mais est-ce que di nga ci lekk yaa ngi sa non foo toll luy sa problème non man kay taay alhamdulilah xotti naa xottil naa soxna si xottil naa njaboot gi jënd naa xar terminé sama yoon ci leneen ah ay waay santal yàlla bul wax terminé gul di bisu tabaski lu ne xej na ci waaw olof yi dañuy wax ne ku génnagul tefes waroo ree kuy lab waaw boo nekkee ci biir géej gi génn koo tefes bul gis kuy lab ngay reetaan ñu ne ku yéeg ci garab warul reeku daanu parce que wàcc goo ni ñu sant yàlla wa amma bi ni'mati rabbika hadis xéewali ñu yàlla defal munuñu ko munuñu ko sant moo tax yàlla mu ne li ëpp ci nit ñi duñu sant yàlla borom bi bàyyi ne aaya bu njëkk boobu chaque jour dinaa wax ne bu ñuy jàng alquran dañuy bàyyi xel aaya yi fu mu jeexee aaya bi fan la jeexee borom bi ne li ëpp ci nit ñi duñ ko sant kon soo déggee loolu yow lan nga lan lan ma war a nekk sa bopp lépp ci nit ñi duñ ma sant lu lan ma war a nekk suñu bopp ci aaya bi ñun ñu fexe tey ba génn ci loolu ñu bari lu ñuy sant yàlla walakin aksara naas laa yashkuruun ñi ëpp ci nit ñi duñu sant ma ne kilifa gi ñu dëkkal sax suñu biir kër yi wala sa patron wala sa pap wala wala muy sa kilifa chaque jour mu lay defal teraanga chaque jour mu lay defal teraanga chaque jour lan mooy sa digganteeg moom di nga ko sant wala doo ko sant ah bu doon sa patron service la saa yoo xëyee mu dóor la cinquante mille bis bu nekk bis bu nekk pendant dix ans pendant cinq ans nooy def di nga sant di nga ko sant wala doo ko sant ah bu la ne woon dañ lay affecté ci beneen patron wala ñu dax ko yow nooy def bu woote woon marché yow yaay njëkk ñëw wala bu doon sa papa la pourtant yàlla defal nañ lopp loolu le yàlla moo nu bind moo nu dundal moo nu may lépp lu nu am moo nu màggal moo nu sàmm waaye duñ ko sant noonu ñuy sant kilifa googu lu tax lu ko duñu sant yàlla lu ëpp loolu borom bi bàyyi na aaya boobu mu ñëw ci beneen aaya di jàjj jullit yi mu ne waqaatilu na ngeen xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla at tariq al mawsul ila mardatihi wa huwa taatihi na ngeen xeex ci yoonu yàlla pour kaweel kàddu yàlla benn borom xam-xam ndeysaan am na ko yàlla jàppale da daan wax Sénégal boo waxee ahlu sunna ñu ne man damay dund sunna mu ne ñu bëri ci mbokk yi boo waxee ñu ne dañuy dund sunna mu ne lu baax la de waaye mu ne balaa sunna farata ba pare te xeex ci lislaam farata la wa qaatilu xeex leen haza amrun ndigal la yàlla joxe lu tax sénégalais sénégalais yi du ñu xeex pour taxawal islam ci Sénégal ah 28 lan la 28 juin ah 23 juin gars yi dañu xeex ne ne touche pas xaw ma ama lan constitution xaw ma ne touche pas ama nangam na nangam nangam wala ba directeur ñu taal assemblée alayhi kazalik pourtant barki démb ñu ngi xas yonent yàlla Muhammad kenn waxul kenn waxul Sénégal kenn waxul kenn waxul te affaire bi am na ay 4 mois sénégalais yi yëguñu ko sax yëngatuwuñu sax 4 mois laa la wax ñun quatrième mois bi lañ koy doog a yëg fii di yëngatu di wax lu tax lu tax xanaa lii du ndigal wa qaatilu ñii nekk fii tey di sonn pour xeex pour ne dañuy nangu réew mi lu tax jullit yi mënuñu fexe ba jël réew mi teg ko ci ay loxo islam lu tax lu tax wala ñoom bokkuñ ci réew mi pourtant réew mi ñun ñoo fi ëpp yàlla nee nañu wa qaatilu xeex leen souvent boo waxee loolu wala am ku ne ah kii kii dafa kii mu ngi bëgg a indi fitna ci réew mi waaw kii mu ngi bëgg a indi fitna dégg mu naan nañ xeex ah kay nañu xeex Macky Sall dafa xeex ba jot réew mi wala Ablaye Wade dafa xeexoon jot réew mi wala gars yi dañoo xeex ak Ablaye Wade ba mu wàcc Ablaye Wade wàccewul boppam de dañu xeex ak moom ba direct tuuru kon xeex tamit moo fi indi lislaam yëpp xeex la ñun ragaluñ ko de dañu ne julli di nañu xeex pour samp lislaam comme gars yi li ñuy xeexee rek bu nee nañ génn dem place nangam ñëpp génn bu nee nañ def nangam ñëpp def ko ñun di foqarte réew mi fekk nanguwunu réew mi njàng mi du normal santé du normal courant bi nuy wax du normal dara du normal waaw day nekk réew mi yaa ma neex ku falu fal say mbokk fal say xarit ñuy paacoo ko séddoo bu affaire yi jeexee dañu mën dañuy audit ana audit yi ah ana audit yi audit yi neen duñu audité kenn waaw fekk nag jullit yi loolu leeru seen bopp nii rek la ñuy toog ñu leen di nax rek ma ne islaam du diine boo xam ne dafay toog fee ci jàkka ji wala toog fële ku dee ñu ñëw jàng alxuraan déedéet islaam diine la buy gouverner buy jiite islaam du diine yërmande yi ñu yaakaar de ku nit ñi toog fii ku leen romb di leen yërëm islaam dafa ñëw pour gouverner adduna moo tax yonent yàlla Muhammad dafa ñëw samp islaam bi sànni lépp dindi lépp ñu samp islaam di ko atte di ko dund islaam dafa ñëw pour ñu dund ko fekk nekk fi kenn mënu ko dund li tax xale jigéen yi di sol lu bon bu islam taxawoon tey dañ naan kenn doot ko fi solati baar yi ñiy jaay sàngara di def yi bon nangam nangam yi dañ kenn doot ko fi defati dañ koy tere parce que baaxul day yàq société mu ngoog kon yàlla nee na wa qaatilu na ngeen xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla loolooy lan na ngeen fexe ba nekk ci ngërmamal yàlla topp ko ci def li mu sant bàyyi li mu tere ngeen xeex ak yéeféer yi nga xam ne ak tooñkat yi nga xam ne ñoom ñoo tere lislaam taxaw waaw dafa ne tey bu lislaam sampoon Sénégal benn waaye dina toog ba mu neex ko muy convoqué góor kooku ñëw ñoom ñaar ñu dem otal wax seeni wax ba sëy ba pare di xeex góor di convoqué góor di ko yóbbu otal di ko juutal di sëy ak moom bu lislaam amoon Sénégal te ñooñu di def loolu ñoom ñooy kilifa réew mi ñoom ñooy ñi jiite ñoom ñooy ñi ñi yaakaar ñoom ñooy orienté xeet yi ñoom ñooy xëy di wax ci seeni journal ah ay góor wallahi bu ñu yeewul mas naa dégg kenn ci kilifa réew mi mu ne Sénégal depuis Senghor ba fii nu toll ay franc-maçon ak ay góor jigéen ñoo ko jiite te chaque jour nga dégg ay kilifa ñu naan diw góor jigéen te lii moo koy leeral ñun nag buñ toogee ay góor jigéen dañuy jiite pour jëm lan la ñuy yow lan la ñuy orienté peuple bi ci lan ci mbon bu nu toogee ay musiciens diñ jiite lan la ñuy orienté bu nu toogee ay mbër jiite nu lan la ñuy orienté lan waaw déet da nga naan coupé gul quatre heures du matin sori na timis ba quatre heures du matin waaw yàlla ne waalamu na ngeen xam anna allah yàlla samiun aji dégg la alimun ko xam la sami lépp lu jaam yi wax alim lépp lu jaam yi def sami alim waalamu na ngeen yëg ngeen xam anna allaha naka yàlla samiun aji dégg la kon boo déggee lii loolu lan mooy ne or na nekk ci yow te maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid lépp lu ngeen wax raqib atid ñu ngi koy bind fii kiraman katibin sami yàllaa ngi dégg alim aji xam la sami alim benn bi rek doyoon na yàlla ne maa ngi dégg rek doyoon na waaye mu ne maa ngi dégg waaye ku xam laa mbir yi encore alim laa yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama dara nëbbatuwul ci moom lépp mu ngi ne fàng ci kanamam moom subhanahu wa taala ñaareelu aaya boobu it liñ ciy jëlee mooy aaya bi fu muy jeexee ñu bàyyi ci xel mooy yàlla nee na damay dégg waaye ku xam laa lan la lay jural mooy nga xam li ngay def ndax yaa ngeeg buur boo xam ne sami alim aji dégg la waaye ku xam lépp looy def la ñetteelu aaya yàlla ne man zalladi yuqridu llaha qardan xasanan man ana kan ki nga xam ne ismu mawsul man zalladi ana kan ki nga xam ne yuqridu llaha mooy lebal yàlla qardan xasanan lebal bu rafet te mooy mu wàññi ci alalam mu joxe ko ci yoonu yàlla jël ci alalam wa yunfiquhu fi l jihad mu joxe ko ci jihad li siraa silah ngir jënd ngànnaay wa taysir il mujahidin ak yombalal ñiy xeex ci yoonu yàlla ana kan mooy coppati ci alalam joxe ci yoonu yàlla tabax jàkk ci yoonu yàlla tabax dispensaire ci yoonu yàlla tabax daara fu nuy jàngee comme ni ko mbokk yi defee ci jamono yi li ñuy jàppale sunu daara jee di ko tabax pour doomu jullit di mën a jàng parce que am na yoo xam ne tey ci société bi li tax jullit yi nelaw mooy jànguñu loolu kese la dañu ne Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman mais jànguñu xamuñu li ñuy def xamuñu fu ñuy teg seen tànk lan lañ leen jàngal lan la ñuy jàngal. amul benn njëriñ li ñu jàngal njàng maa ngi nii amul benn njëriñ waaw da ngay jàng ba mu lan puso sax mënuñu ko defar puso amul njëriñ waaye buñ jàngalee jullit yi ñu xam yàlla ñu xam seen diine ñu jóg taxaw ci seen réew jeex na takk moo tax yàlla bi mu naan jàngaleen iqra lan la ci rek bismi Paul aw bismi Jean iqra bismi rabbik jàngal sa turu borom gis nga bismi rabbik mooy njëkk ci jàng faalam annahu la ilaha illa allah iqra bismi rabbik sunu borom ne na ngeen lebal yàlla man zallezi ana kan ki nga xam ne yuqridu llaha mooy lebal yàlla nooy lebale yàlla mooy sa am am bi nga am génn ci ngir nga jox yàlla coppate ci nga jox yàlla joxeel ngir yàlla qardan hasanan lebal bu rafet borom bi ne fa yudaa'ifahu lahu man yàlla subhanahu wa taala dinaa ko dubleel loolu mu ma jox adaafan double ay double kasiran yi kasiratan yu baree baree bari sunu borom boo ko joxee benn fukk la lay fay man jaa bil hasanati fa lahu asru amsaliha yàlla boo ko defalee benn fukk la lay fay moo tax boo defee benn benn ba benn tiyaaba ñaata la la yàlla di fay fukk ñu ne lu tax ñu ne yàlla lu baax rek la am waaye boo defee lu bon ñu ne yàlla ñaata la lay fay gars yi ne benn ñu ne déedéet yàlla du la fay benn da lay bàyyi ak benn bu bon boobu nga def parce que yàlla amul lu bon lu mu la jox man jaa bil hasanati fa lahu asaru amsaliha wa man jaa bi sayiati mu ne fala yujza illa mislaha kenn du la jox lu dul lu bon loolu nga defoon yàlla amul lu bon lu mu la tibbal di la jox comme lu baax la yor nag moo tax boo defee lu baax mu dubleel la fa yudaa'ifuhu lahu
aaya bi ñaari ñaari ñaari phrase yi dafa man dama ci am benn benn set bismillah mooy bi yàlla ne man daal la si yuqridullah mhm bu fekkoon dafa yem foofu rek sax di nga xaw a mën a dégg mais daf ci yokkaat ne la qardan hasana yàlla insaan kon bamtuwaat na tam joxe bi ngay joxe noonu sell waaw même tam ci payoor bi tam mën na yem rek ci ne fa yudaa'ifuhu lahu yem fa Mhm.
daf waxaat tamit ne adaafan kasiran wallahi sahi nag jëf ju muy gën a baax tam ñun ci communication bi di gën a baax di gën a bëri dafa mel ni loolu mooy xaw a bay ci diggante ñaari mooy feeñ ci lépp man za allazi yuqridu llah ana kan kuy jox yàlla waaye boo koy jox jox bu rafet wala am na aaya bu yàlla naan bu leen jël seen aaya seen sarax yi bil manni wal aza sarax boo xamante ne bàkkaar nga ci am am na sarax boo xam da ngay am tiyaaba wala nga bañ a saraxe sax nga am tiyaaba waaye nga saraxe ba pare am bàkkaar mooy am ah xam nga waa ji jox nga ko mais doo am tiyaaba waaye xaaral bu ëllëg nga jaaraat tey affaire yi dafa xaw a métti da nga am tiyaaba lépp yàlla dafa bëgg lu rafet même bu ngeen di rey mu ne bu ngeen di rendi xam nga rendi rendi dafa métti wala dafa ba dafa dafa dafa dafa métti mu ne même bu ngeen di rey na rafet même bu ngeen di rendi ñu ne ko na rendi nu muy rafetee mu ne ñàdd leen xar mi ngeen ñawal paaka bi ngeen teel koo rey mu teel a noppalu même renti même ngay wax ak juif yi mu ne wala tujaadilu ahlal kitab illa billati ahsan ahsan même bu ngeen di discuter mu ne na rafet na rafet yàlla bu la santee même lu rafet na nga ko def dafa bëgg boo koy def na nga ko def ci nu mu gën a rafete wala sunu diine li muy jàngale même loolu muy wax fa yudaa'ifuhu yàlla nee na dama lay dubleel fa yudaa'ifu lahu waaye adaafan kathira dama la koy dubleel ba mu bëri bëri bëri bëri loolu sunu borom jàngal nañu ko ci mbay mi booy bay nga jël gerte wala nga jël dugub wala nga jël mboq ji buy sax lu muy sax ñaata mboq nga ji woon bi ngay def ci suuf di suul ñaata la woon benn bi mu màggee ñaata la la yàlla fay ah fi kulli sumbula mi'ata habba wallahu yudaa'ifu liman yasa gis nga de fi kulli sumbula mboq bu nekk mu ne mi'ata habba benn la woon waxuma la sax benn mboq laa la fay benn mbool laa la fay waaye daf laa fay yu bëri ba pare benn bu nekk ci mbool yooyu mu ne téeméeri pepp a ngi ci ba ci dugub ji ngay lekk maanaam ñun li nu am wallahi dañ koo xamut waaw dañ ko xamut waaye buñ ko xamoon wallahi kon ci jàmm la ni nekk dañuy dund àjjana ci àdduna buñ demee àllaaxira yàlla dugal ñu ci bu mag bi waaye ñàkk xamu jullit yi parce que lu tax parce que jullit yi dañoo réer xamuñu yu ñàkk fayda yi lañ topp ñu leen di nax waaw tey boo xoolee li yendu ci stade amitié li yendu foofu kenn xamul ñaata mbooloo la lan moo leen fa yendal ay kaas ay coupe coupe ay coupe coupe coupe coupe lan lay tekki loolu lan li fa yenduloo nit ñi lan lay tekki lan lay jëriñ ci xeet wi ah lan la ñuy indil loolu lan la ñuy représenté lan la ñuy indil après bu ñu ko gañee lan la ñuy indil lan amul benn njëriñ yu amul njëriñ yu amul bopp yi moo tardel xeet wi tubaab yi dëral ñu rek ay yoon yoo xamante ne du ñu yeewu mukk yëpp ci la bokk waaw léeg-léeg ma wax xale yi football fii nawetaan nawetaan ci nawet lan nekk ma ni équipe yi yëpp ku nekk mun lañ joxoon 4 kilomètres carré nga bay équipe yi 4 kilomètres carré ñu bay ko équipe bu nekk ñu jox leen ko bu nawet bi jeexee Sénégal dootuñu jëndi ceeb dootuñu jëndi mboq dootuñu jënd dugub wala mais dañ leen di bàyyi ñuy daw ci naaj bu tàng bi 3 mois 4 mois ba mu jeex tàkk ñu jox la benn kopp boo xam ne boo ko dencee 6 mois mu commencé xumaat kopp bu doon sax bronze bokk mais weñ gu ñuul kukk boo ko bàyyee sa kaw table 3 jours mu commencé xumaat billahi wallahi taala amoo benn njëriñ ci liñ leen jox ma ma ñëw jël coupe bi après après te tey bu doon tool la bu ñu bu ñu bayee ñu jaay ku nekk am loo yóbbu sa kër mais gis nga nit ñuy naxee écrit mbëri yëpp mun leen defoon noonu mais dañuy nax rek li gars yi nee na ñan ñoo fi indi indi football du anglais yi mais amul nawetaan Angleterre am na nawetaan amu fa wallahu yàlla yaqbid wa yabsut yàlla mooy xatal yàlla mooy yaatal Hmm. yàlla mooy xatal mooy ñàkkloo mooy tëj robinet yi hmm? mooy tëj affaire yi ba mu metti nga xëy di kër kër yi fu ne nga dugg fa mu tëju yàlla moo koy def waaye wa yabsut yàlla mooy tàllal bu ko neexee mu ubbi da ngay laal rek yëf yi yomb du dara du tag ñu naan mii kii moom kii waaw waaw kële nag mu tëj ay mbiram ñaar yëpp nattu la allahu yaqbid yàlla mooy tëj seere yu dayiq xatal mettil ba mu metti ba nga saalit waaw ba nga saalit léeg-léeg nga tremble waaye yàlla tamit mooy yaatalal kële ci wetam ñaari yooyu yëpp am na lu tax mu def lan moo tax mu xatalal kii lan moo tax mu yaatalal kii moom sunu borom subhanahu wa taala mu ne fa inna rabbakum yaqbid wa yabsut mooy xatal mooy yaatal yu dayiqu alal abd ibtila day xatalal jaam yi ngir natt ko est ce que dana muñ est ce que du ñàkk jël jaasi nekk agresseur di goraate comme ni mu amee tey est ce que du ñàkk dem di jouer ji PMI nga wax mu ne dëkk bi amul liggéey est ce que du ñàkk dem di jaay boppam est-ce que du ñàkk dem di def lu bon di sàcc di fen di tappale ibtila waaye yàlla mooy yaatal moom tamit ngir lan ibtila wa yuwassi imtihaanan yàlla yaatal yombal ba mu yomb ngir natt ñaari yëpp nattu la fa amal insaan iza mabtalaahu rabbuhu gis nga ibtila la wax ñaar yëpp am am nattu la ñàkk nattu la kon bu mu ci mën a nekk ci yow bu dee da ngaa ñàkk muñal dama nga kër këri te nga muñ xam ne yàllaa lay natt bu dee dafa yaatu yàllaa lay natt xool alal ji mu la jox fan nga koy dugal ñaar yëpp nattu la sunu borom mu ne fa manaakum al infaq fi sabilillah yàllaa la yaatalal jox la mu xool ndax di nga joxe ci yoonu yàlla ku am yàlla moo la natt ku ñàkk yàlla la natt kon ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk lu mu war a def mooy ki ñàkk mu xam ne ci nattu yàlla laa nekk yàlla moo ko neex olof yi dañuy wax ne kër kër yi ah xoolal boo gisee bâtiment bu ñuy liggéey wala nga gis tali bu ñuy liggéey wala nga gis dara ñu koy liggéey wala nga gis dex gu ñuy gas ñan ñoo gën a sonn mooy ñu yor peel yi ñuy def liggéey bi yëpp am na ci koo xam ne moom otoom rek la yor ñëw di xool yor big costume du sax takk bu ñëwee day moytu yenn saa yi sax du jege sànce bi fële lay taxaw te moo ci ëppale wala ñi nga xam ne ñoo gën a takk gën a sonn ñooñu ndeysaan sànce bi ay 3000 lañ ci am par jour 3000 2000 journée te ñu gën a sonn xoolal yàlla mooy indi mbir yi xam ngeen Sénégal tey toolu nañ foo xam ne ñi ëpp alal dégguñu tubaab dégguñu arab am ñoo xam ne lu ñu signé am naa ci gis naa ci koo xamante ne portable bi mu yor sax dañ koy composé le numéro bi dafa am ku mu dendal ku mu soxla moo naan ko wool ma diw koo ko génnee carnet bi jël composé kër këraj ba mu sonee mu ne ko am mu jël mënul xamul numéro yi te milliardaire la yàlla mooy indi nga gis tey koo xam ne nee nañ jàng na université dem na fu nekk mu ngi ak diplôme yëpp liggéeyul mu ngi toog boo waxee mu ne si dëkk bi dafa métti wala kay jàngul kon yàlla mooy joxe gis nga bu ñu gëmee loolu suñu fitra mooy day dal dañuy tranquille yàlla mooy joxe yàlla mooy xañee ku yàlla jox ñu xam ne moo la jox ku amul ñu xam ne yàlla moo la xañ loolu lan lay jural mooy doo bokkaale ji boo amul doo bokkaale doo rey ay deret doo sangu deret doo tukki doo dem fen da ngay gis ne benn waay non man damaa tëju damaa tëju foog ma tijjeeku ci dama tëju sama lépp a tëju foo ma dem tijjeeku ji nga dem dugg oto nga dem ci ginnaaw benn àll boo xamante ne waa ji fa dëkk ñàkk pexe moo ko fa dëkkaloo ay guya ko tiim ay guy bu guddee xam nga lay dégg ay sek waak lu kenn xamul ay sindax ngay dégg ñuy yuux nga fekk foofu kooku mu ne da lay tijji moom tijjeekuwul mu lay tijji yow nit ki dina fi bàyyi immeuble yu neex yi climatiseur yi télé yi nangam nangam yu luxe yi nga dem ba ci ginnaaw kili koro nga ne da nga fay dëkk boo mënoon tijji tijjeeku tijji nit ñi yow ngay tijji nit ñi te doo tijji sa bopp nga dem nit yee dëkk bi ma demoon àll bi ah mais pas bi ma fa fekk mu sang la ay deret sang la ay soow jox la lu kenn xamul nga bàyyi fa cinquante mille wala deux cent mille yow dootoo tijjeeku parce que deux cent mille yooyu ci li la waroon tijji la bokk vert nag da ngay gën a torox nga ñëwaat war a lijjanti at yeneen deux cent mille te deux cent mille yi daa jox na taabal paa boobu moom bi nga demee ndeysaan mu rey xaram ah ubbeeku ay fan waaw ay fan muy njar soow mu neex kay jaaxaan ba beneen dof ñëwaat bu mel na yow ba ba noonu rek lay liggéeyee ñooñu bu ñu doon tijji tijji tijji nit ñi tijji seen bopp kon soo gëmee ne yàlla mooy indi doo bokkaale ji tey ñaata nit ñaata nit nga gis même ñaan même ñaan sax da ngay gis ku ñëw ne ne ñaanal ma li waa ji doon wax benn waa ji ne oustaz ñaanal ma dama bëgg a tukki mu ne bismillah bismillahi rahmaani rahim ñu jàng faati ayatul kursi mu ne lii rek la mun a mun a waaw da ko xeeb tey nit sénégalais yi sax boo leen di boo leen di wax ñaan ñaan na nga ñëw ma ñaanal la mu ñëw nga ne ko tàllal loxo yi pëgg da koy xeeb mais bu ñëwoon nga ne ko dama ngeen di bopp mus mu ñuul deru kaña bopp nag mu ngi mu ne ngand laa gis tey ngand non yéen xamu leen gis ngeen kii xamu leen ko kii da ngeen dëkk ak moom meen u yooyu la ñuy gëmloo nit ñi sénégalais bëggul lu yomb bëggul lu yomb loolu moo tax ñu am problème moo tax ñu sonn yooyu nag aaya yi soo ko gëmee da ngay xam ne yàlla la nga jublu ci sa borom xam ne yàlla moo lay natt mu xool ndax di nga muñ ki ñàkk dañ ko nattu ngir mu muñ ki am ñu nattu ko ngir mu sant yàlla ñaar yépp la da ngaa am ñu xool ndax yow di nga sant yàlla fooy def alal ci da ngaa ñàkk ñu xool ndax yow di nga muñ loolu la ñu aaye di jural mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne wallahu yàlla yaqbidu mooy tëj mooy ŋëpp mooy xatal wa yabsutu mooy yaatal wa ilayhi ci moom yàlla turjauna ci moom ngeen di dellu waxoon nañ sànq ne buñ jàngee alxuraan nañ bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee yàlla mu ne wa ilayhi turjaun ci moom la ñuy dellu kon bu ñu gëmee ne ci yàlla la ñuy dellu lan moo nuy war hmm? waaj rek préparé kuñ ne di nga delluwaat ci yàlla war ngaa waaj préparé bu baax a baax a baax xam ne di nga yaa ngi dajeeg sa borom bis a ngi ñëw di nga dajeeg sa borom nga waaj préparé wa ilayhi ci moom yàlla turjauna ci moom la ñuy dellu ñetti aaya yi dinañ ci jëlee juróomi mbir bu njëkk mooy iza nazala al bala waba bi baladin laa yajuuzu alxuruju firaaran minhu musiba choléra bu amee cib dëkk dañuy tere dëkk ba mu am nit génn fa jëm beneen dëkk loolu mooy sunna dafa am feebar yoo xam ne bu amee ci dëkk dañu interdit nit jóge fa dem beneen dëkk dañoo tere nit jóge feneen ñëw foofu gis nga lislaam bi mu commencé wax li ñaata at la bi ko yonent bi waxee ñaata at la bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne mu ne ñëw na ci saxiix ñu jëlee ci imaamu tirmisi mu ne zak isa zukira taun mu ne bu ñu waxee choléra mu ne moom yonent bi saa salaam mu ne choléra desitu mbugal la bu yàlla mbugaloon banu israil mu ne bu amee ci dëkk yéen fekk yéen a ngi ca dëkk ba bu kenn génn waaye bu kenn jóge encore beneen dëkk ñëw ca dëkk boobu loolu lu muy wone mooy feebar bi balaa muy tasaaroo parce que boo jógee fii yóbbu ko tasaare nga ko bu keneen jógee fii ñëw daf koy am loolu mooy lu njëkk lu ñu war a jëlee ci njàng mi ci aaya yi ñaareel mooy wujubu zikri niami wa shukriha xéewalu yàlla dañ ko war a tudd waaye dañ ko war a sant ku yàlla defal xéewal bokk nañ ci lañ la sant mooy xéewal yooyu yàlla defal la foo nekk dee ko tudd ci sa làmmiñ waaye dee ko sant ci sa xol ak sa làmmiñ wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis i'malu ala daawuda shukran wa qalilum min ibadiya shakur waaw ñetteel mooy wujubul qital fi sabilillah ida taayan xeex ci yoonu yàlla dafa war bu ko jamono bi laajee te jamono bi ñu toll da koo laaj jamono bi jullit yépp war a takk xeex pour seen diine taxaw pour bu leen kenn yab comme nit ñu yabee tey nii bu ñu toogee fi mu nekk nii di dessiner Muhammad di ko jouer ay film porno di ko def ci internet di ko def ay film yu ñaaw nga julli di lañ yab rek tey kenn ci ñun fii ci sénégalais yi bu ñu dessiner woon sa papa wala ñuy jouer ko film looy luy xew ah tey bu ñu dessiner woon benn kilifa tarixa luy xew ah tey dañoo dañoo dañu fexe ba jullit yi xamuñu lislaam ay tarixa moo ñu gënal sariya da ngay dégg sax ku naan ah man de wax dëgg yàlla sariya suñu yoon nekku ci waaw déggoon ngeen fi sama ja jamono yële passé benn waaye bu doon wax waaye muuraay day moom mbirum sariya la muuraay waaw ku mu neex nga muur waaye ñun day sant nunu muuru ñun ñun duñu muuru suñu yoon ci muuraay ñun wala déggu leen woon loolu waaw waaw ku mu neex nag nga muuru waaye ñun sant nunu loolu waaw ñun suñu yoon ci loolu ñun waaw di nuuru waaw di muuru di nuuru lu kenn xamul loolu ngeen dégg ñi xas sariya di xas lislaam ndeysaan waaw ndeysaan foofu mooy Sénégal moo tax fii dañuy sonn rek wallahi wax naa leen ko yàgg naa leen ko wax bu ngeen yemee ci ay courant yuy coupé sant leen yàlla illaahi bu ñu yemee ci nii nii lii nii buñ ci yemee nan sant yàlla de fii nan sant yàlla fii wax yi ñu fiy wax yàlla tukkil na ci àdduna wax yi ñuy wax fii wallahi am na réew yoo xam ne buñ ko waxoon yàlla dafa tukkil àdduna boobu yëpp la rey sama yoon ci sharia mooy sama yoon ci li Muhammad indi et puis képp koo yaakaar ne li mu indi moo gën a baax li Muhammad indi yow yéeféer nga te Sénégal looloo fi nekk
même fi muy askan wi daf leen tuumaat.
waaw ndax boobu li mu bind ci muuraay dafa leer.
leer na tanaani diini.
xatta tardi hatta tasturi jismiki bi taxa yaqiina bu bi taxamurin
te voilà.
mu demoon ci beneen bëy bu ñu tuddee wasiyatu Penda Diop wallahi da nga naan non kii moom dafa ku teengal sax diine yi noonu nga koy tuddee ndax ni mu wax ci jigéen nan la war a mel waaw laata muy génn nan la war a mel kooku dafa xamoon mu diine digal ko buy dox bu mu dox ci diggu mbedd nday doxee ci côté pour ñu bañ koo ràññee loolu mooy sharia loolu mi ngi ci wasiyatu Penda Diop loolu mooy sharia mooy diine ñooñu dañoo jàngoon diine ñii nekk fi luñ jàng koo xam ne danaa la man alxuraan gi xaw ma ci lu dul loolu di nuroog neuf kooku kay waroo wax waroo jiite ci lislaam alxuraan bi charia bi ko jàngul xamoo ci lu dul loolu di nuroog neuf ba pare bëgg nekk kilifa diine loolu mooy suñ problème ba pare nga am am mbooloo te yow jàngoo diine waaw jàngoo ma diine da ngay gis ku ne man jànguma jànguma ba pare bëgg nekk kilifa diine non Sénégal dafa neex moo tax léegi lan mooy seen problème yéen lan ngeen am ay mbër yu ñu seexal ay musiciens yu ñu seexal waaw seex seex bilaay seex a torox ci Sénégal seex seexu diin seexu mbër waaw boo ko tariloo Fatiha munu ko ñu def ko seex mu jiite lislaam waykat bu woy ba sonn ñu def la seex mbër mu retraité ñu def la seex député bu xubitaas màgget ñu def la seex ku dàq joxe xaalis ñu def la seex loolu mooy Sénégal de ah seex yooyu ngeen doon dégg est-ce que seex yii la seex yoo xam ne mokk luñ faatiha ñeenteel mooy fadlul infaq fi sabilillah joxe ci yoonu yàlla gis ngeen fii tamit war nañ fi soññ jullit yi gis ngeen jamono yee biñ ne inondation bi am na ñu ne ku nekk na indi jullit yi loolu ñoom ñoom ñoo ko war def jullit yi ñoo war am foo xam ne dañ fay dugal seen alal ngir liggéeyal diine comme noonu ñuy joxe tey loolu buñ ko doon def ñun génn nañ ci lii buñ dajale woon sunu alal tabax ay école sunu doomi di ci jàng ñu da dajale defar sunuy yëfu bopp former ay nit teg leen ci kon nit ñi jeex noppalu nan kon dootuñu dépendre ci ay yahud ak ay nasaraan ñu ñuy ñu ñuy feccloo waaye xoolal jullit yi ndeysaan boo nee jàkka yu ñuy tabax fi sabilillah sax waa ji day dugal loxo ci poos nga dégg loxo bi naan ko attention de rombal billet yi mu ne nii waccaxal billet yi waccaxal billet yi mu ne nii mu ne waccaxal pièces yi weex yi mu ne nii ba mu làmb mu ne ko xoos ko xoos ko sa loxo bi weeg nga say bu nee juróomi dërëm di nga ko xam li nga génn mu ne ko nii ci biir loxo bi yàgg na fa de day xoos wala day day xale billet yi quoi ba mu yàgg fa mu doog a ne nii piis ko mu gis bu xonq la mu ne nii juróomi dërëm lan la mën ci jàkk bu ñuy tabax juróomi dërëm fii sabilillah nga joxe juróomi dërëm juróomi dërëm juróomi dërëm loolu mooy suñu problème al infaq fi sabilillah bayaanu al xikma fi tadiqi llahi ala al abd rizqihi juróomil mooy yàlla day leeral ci aaya yi mooy su xatalee jaamu yàlla jaam bi bu xëyee amul lu tax yàlla xatal ko waaye sunu borom mu ngi xamal ne xatalu la ngir bañ la ngir ngir waaye daf lay nattu rek daf lay nattu day xool yow foo toll alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax da ngeen naan gëm naa rek di ñëw jàkk fi mu nekk ni am na ñoo xam ne bu ñu ñàkkee dañuy ñëw jàkk billaahi dama musa am benn dëkkandoo boo xam ne dama dem jàkk fajar fekk ko fa ma ne ah lu xew ma ñëwaat gisaat ko ma ñëwaat beneen fajar gis ko ma ñëwaat quatrième fajar gisuma ko ma xëy yaayam ne ma dem na Italie dem na dem na biig ma ne ah kii ndeke loolu taxoon muy julli gis nga bëgg dara tax ngay julli waaw ngay dégg temps yi moom damay sellal ndax dafa am lu ma bëgg du loolu sellal gi dalaa war guddeeg ba cag am nga amoo wér nga wéroo daf la war waaye sunu problème yépp mooy tey nit ki bu ñàkkee di commencé jaamu yàlla bu amee daw jàkka ji waaw mu nekk nii koñ boo dem day néew nga gis fa milliardaire wala millionnaire buy julli ca jàkka ja gars yi sax dëkk am na fi mu nekk nii ci Dakar ay côté yoo xam ne amul jàkk boo fa buggee tabax jàkk sax ñu ne la woo dégg naa benn waay buy luwe kër benn waay yóbbu ko ci benn Dakar ci biir Dakar benn këram gu mu tabax ba pare waa ji yéeg dugg kër gis mu ne macha allah kër gi moom normal na mu yéeg ci kaw immeuble bi mu seen benn sooroor mu ne wuuhuhuhu waa ji ne ko lan la mu ne ko fii yàppa du ma mën a nelaw xoolal jàkka ji du ma nelaw du ma nelaw waa ji ne ko ah mu ne ko doy na kër gi vraiment kii woon naa ko mais fii doo mën a nelaw ñu nelaw ndeysaan xoolal loolu noonu la waa ji bàyyee place boobu dem xoolal loolu moo nu dal yàlla na yàlla gindi yàlla nañ yàlla woon dëgg mu wër mu wërsëgal ñu topp yàlla ñu yàlla woon neen mu wërsëgalu ñu sori ko incha allah darsu tay bi fi la ñuy yem ba samedi bii di ñëw incha allah aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh